tey boo gisee ñu wootee euh, gannaaw bu président Macky Sall choisir candidature am euh, dañoo daje woon fii avant muy choisir ñu ne woon président ku mu choisir dinañ ànd ak moom gannaaw nag bu mu choisiree Amadou Ba ma woo maire yëpp woo alliés yi woo député yi woo coordonnateurs yi woo tous les responsables pour woon leen candidat président Macky Sall bu mu tànn moo tax moo ñu daje fii di si débattre am maire yi ñew amna ñu ñewul di remercier encore euh, responsable ak député yi maanaam téne Ndiaw mu ngi ni si ñu wet parti socialiste ñew leen wuyu si waa AFP ñëw leen wuyu si euh, vraiment euh, kenn desul dal danaka tous les alliés ñew leen. mais problème bi moy ñin quelques maires yi ñewul yi té vraiment yëgoon neen réunion bi xawma lutax nak ñewuñu mais man lu moy woté moy unité pour ñu nekk ben appelé le président de la république tant candidat bu mu tànn mu lancer te lancer message encore aussi candidat bu bees bi vraiment mu responsable du responsable département yi Koupantoum vraiment soo une division bi am fii dara su dul place xàccoo poste dong moo tax division bi parce que ku nek day bëgg am ben poste de nomination mais fekkee ñun maire yi nekkoon neen ben nek unité nek unité benn mënoon neen bind jafé jafé jeunesse bi bind jafé jafé jigéen yi vraiment ñu dem déposer ko si table président de la République foog suñ ko defoon rek président dina don régler lolu mais division bi dara warul ko sudul ay xàccoo poste vraiment parce que foog ñun ñëpp ñoo àndoon nekkoon benn ànd élection bu ñu am victoire bu askan bi fal ñi kon bu ñu gagné waruñu diviser dañoo waroon nekkaat benn vraiment di xaccoo pour askan bi pour jeunesse bi pour jigéen ñi mën a gis seen bopp. man daal division bi lu ma si gis mooy calcul politique la ak xàccalanto intérêt personnel. ndaxte tey jeunesse baa ngi nii euh, di di jooy. ne vraiment ñoom kontaan nuñu depuis président Macky Sall toog fi parce que gisuñu benn nomination ci jeunesse bi gisuñu benn nomination encore si jigéen yi loolu moom foog naa ne ak coordonnateurs yi ñu ngi koy kaas te man yàgg naa wax président la république pour mu recevoir ñooñu waxtaan ak ñoom kon ñu ngi ñaan président Amadou Ba mu recevoir responsable département Koupantoum yi alliés yi yi. ak euh, coordonnateur yi ak jeunesse yi ak jigéen yi vraiment ñi mun a diisoo ñi mun a waxtaan pour unité bi mun a nekk fii si départ pour ñu mun a am victoire